wa ala alihi wa ashaabihi wa taabiina lahum bi imaanin ila yawmi diin ixwat al imaani wal iraada lakum assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di jiital ci néew bi sëriñ Muntaqa mboolem ñi mu bokkal Cheikh Ahmadou Bamba di jël néew boobu di ko teg ci loxoy doomam sëriñ Abdul Ahad Mbakke moom sëriñ Murtada moom Cheikh Abdoulahil Ahad mu joxal nu ko ay way juram yépp ñuy nuyu mboolem ñi bokk ci ànd liggéeyal maam jaaratullahi buso di nuyut boroom xam-xam yi fi teew yépp ak kilifa yi ak jàngkat yépp di nuyu mboolem soxna yépp itam nag ci liggéey bu rëy bi nga xam ni moom la ñuy jéem a def ak yéen tey yi mu yëkkati kàddu ngir fàttalente mu mel ni daaw bi muy am bokkoon naa ci programme bi waaye dama demal bitim réew beneen bit am lu ko fangoon waaye liggéeyal islaam jaare ko ci sëriñ bu mag bi dafa doy ab liggéey rawatina kii ñuy liggéeyal di maam Mariama Bousso ñu gën koo miin ci maam Jaaratullah muy jigéen joo xam ni aw turam ak dàkkental bi garaat bi ko ci topp benn bu nekk kéemtaan la ndax Mariama li muy tekki mooy laa rayba fiiha koo xam ni amuloo sikk amuloo benn defe defet boo nee Mariama mooy ku amul sikk yàlla tànnal ko tur woowu mu ci alxuraan ay yoon bu ñu xooleen jigéen ñi àdduna ba mu jeex moom rek la ci aw turam nekk ci alquran Mariama doo fa dégg Aïcha doo fa dégg Fatima doo fa dégg keneen Mariama rek ngay dégg muy yaay yonent yàlla Isa alayhi salaam boo xoolee turu Cheikh Ahmadou Bamba Ahmadou Muhammad ñëw na ci alquran ay yoon kon dafa mel ni ñoom dañ leen a waajal ci alquran ñu door a ñëw jamono. maam Mariama nag nekkan boroom yéene ju rëy ci am njaboot ñépp baax ba yàlla jox ko kenn koo xam ni li ko yàlla yan ci daraja bari na ay yonent sax amuñu daraja boobee Cheikh Ahmadou Bamba mi doomam am ndax lépp la joxoñ muy benn garaat wala melokaan bu nekk ci jëmmi waa ju baax jule téere yi mës jàngal yàlla boole na mbooleem daraja ya ak melokaan ya def ko ci jënn jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu Cheikh nekk jënn jëmm ju taxawee mbooleem gaa yu baax yépp ci ay may ak i karaama xostu mawaib alkiraami tarra lada taxarubin kafaani charra nee na mbooleem may gu ngeen doon dégg ci waaju baax yépp yàlla jóor na ko mi wenn say mu jox ma ko man Sëriñ tubaa am naa ko kañ nga ko am mu ba may tukki te yàlla fegal na ma lépp loo xam ni aw ay lu bon la mboolem yonent yi boo leen dee seet ñu ngi ci biir jëmmi Sëriñ Tuubaa maanaam ndab li ko yàlla jox moom Cheikhul Khadim li baax lépp daa dugg ci biir te ku musa am ndab bu ñu dugalee lenn lu baax ci biir mu fees sa ndab moom mu jël yëpp dugal ko ci ndabam moom Cheikh Ahmadou Bamba loolu moo tax nga dégg mu ni li ma ko may mooy ragal yàlla gi nekkoon ci man ndax bi borom bi waxee ni na ngeen ragal yàlla dégg dégg ragal yàlla muy xaqa toqaatihi ba yàgg mu ni na ngeen ragal yàlla kenn kenn ku nekk la mu àttan la mu man Cheikhul Xadim ni nag yàlla bu waxee ñaari baat lu ca benn jafeñ-jafe nit du tee am ñu ko man te man la yàlla jëkk a wax moom la gën a bëgg moom laay def man Cheikh Ahmad Bamba daal di jël tawxiid googu nga xam ne moo nekkoon ci yonent yoo yële mu ni lillahi xad wajjahtu tawxiid ar-rusul ali imu aska salaamay man yujil ragal yàlla gi wan ci yonent yëpp moom laa jëlee man Cheikh Ahmad Bamba def ko ci sama jëmm jubloo ko yàlla loo ci jëlee mu ni niltu ujur al ambiya wa rusuli wa sahbi ay amlaaki inda al mursili mbooleem yool bu nekk ci ab yonent ak pay hmm. ah ak a yéeme cheikhul xadim ne yowmal xiyam bu yàlla dekkalee maam aadama fay ko payuk yonentam nga danaa taxaw man sëriñ tubaa jël pay gu tal ni payuk aadama ña gëmoon aadama li leen yàlla bu buñ ko fayoo man rek ma jëlaat pay gu toll nii mbooleem ña aadama lañu am yàlla woo Ibrahima Sëriñ Tuubaa jël payu Ibrahima ba yonent yépp jeex déggal de niltu ujuur anbiya wa rusuli wa sahbi wal amlaaki inda mursili mbooleem ku yàlla mësa yónni wala muy ku ñu solowoo leen di yàlla faye ñoom ñëpp man dong am naa ko mën Sëriñ Tuubaa am payug ña leen toppan ñoom ñépp ba ko aman ak pay ci aadama lañ leen séddale ñoom ñépp man Sëriñ Tuubaa am naa ko ma door dugg ci malayka yi bu yàllay fay malayka yi Sëriñ Tuubaa rek moo fay taxawaat ànd ak malayka yi fayandoo moo tax mu ni wala am naa ki ak malayka yi am naa seen pay kala ko jox mu ne indal mursili fi yàlla mi aj yónnee ji xanaa kon jënn jëmma ngoog ñoo xam ne boo ko amee am nga ñëpp mooy Seexul Xadim kooku nag ki ko yàlla tànnal muy waajuram mooy mar maam Maryaama Buso mi maam Jaara maam Maryaama Buso xawat rida allahi fi sirrin wa fi alanin qad aslaha allahu dunyaha wa uxraha maam Jaara dafa am ngërëmal yàlla ci li nëbbu ak li feeñ yàlla defaral ko addunaam ji ñu nekk defaral ko alaxiraam ga mu jëm faaxat ataaya nisaa al aalamina ma an inda al muaymini mulii ataayaha mboolem jigéen ñi ñoom ñépp ñi ci baax payug maam jaara moo ëpp seenu pay moo leen gën a kawe daraja boo xoolee góoru àdduna ñi ni Cheikh Amadou Bamba dajalee mboolem mayi gaay yu baax ci jënn jëmmam noonu la maam jaara dajalee mboolem mayi jigéen ñu baax ji loolu mooy faqad ataya nisaal aalamina ñëpp mooy kawe may lu ko yàlla jagleel la moo Cheikhul Xadim di wax ni radiyallahu anhu wa habli walidayya maa laa yafnaa min almunaa yaa xaasifan maa xifnaa yow saa borom mayal ma maam jaara ak sëriñ Momar Anta Sali may yu dul jeex yow mi nga xam ne yaa dagg sama lu may ragal yaa dog sama digganteeg loola eh ndax xam ngeen ni ku ñu jégal boo ko liggéeyee la ñu jégal la ah? am néew rek buñ koy gunge muy néew bu yàlla jégal yonent bi nee na alayhi salaatu wassalaam li yàlla yi jëkk a néew ba mooy jéggalal ko ñu ko doon gunge di ko yóbbu ci armeel yi kon ku ñu jégal boo ko liggéeyee la ñu jégal la maam jaara nag jégal nañu ko xaadima rasul ne na lam yaxfa kawnu laa ili alaya xafara lii dumma li walidayya dañu fànn nag leer nañ ni ma yàlla jéggale man sëriñ tubaa maag sama ñaari way jur yàlla jéggal nañu waaw kon ki ñu xam ci ko am njëgal mooy maam jaara sëriñ Mamar Anta Sali xaadima rasulullah yàlla jéggal na leen mu tekke moom sëriñ bi ni kama xafarta li sawi taalluxi biya li wajhika faqat yaa mutliqi noonu la yàlla jéggale mboolem ñi aju ci man sëriñ Tuuba ah yàlla jéggal na sëriñ bi jéggal maam jaara jéggal sëriñ Momar Anta Sali ba noppi ku jox sëriñ Tuubaa sa bopp yàlla jéggal na la kamaa xafarta li sawi taalluqi bi yelli wajhika faqat yaa mutliqi kon loolu dara gënu ko rëy Maam Jaara moo dàqana jaamu yàlla ci jigéeni jamonoom moo tax Cheikh Samba Jaara Mbay nee na min al imaaraati kawnul ummi aabidatan mutiatan rabba fawqal mutiati bokk na ci tegteel yu leer yi yuy wane ni Cheikh Ahmad Bamba dina moom jamono waajuram wu jigéen ni mu nangoo wane jaamu yàlla ba dàq jaamu yàlla nit ñi kon jigéen bu nangoo jaamu yàlla la muy tegtale mooy suñu borom fay ko doom joo xam ni bu ëllëgee mu dàq jaamu yàlla waa jamonoom